Euh, des forces du progrès bu Moustapha Niass euh, njiital assemblée nationale moom nag euh, Moustapha Niass def na fi ñaari yëf yoo xam ne moo fi tege bu njëkk bi yónnee na fi contribution di tagg Macky Sall ñëpp yuuxu mënu leen mënu leen maa mën def bureau politique boo xamante ni nii daal di firndeel lettre ba mm. ñu bëggoon nag yow Mamadou ndax yow laa njëkk gis ci kilifay boobu le boo xam ne euh, osé nga jàkkaarlook sénégalais yi euh, wax li xew ci seen parti ak i tamit noo ko dundee waaye ci presse écrite la muy euh, sunu bos bi l'observateur ma ci profité di waale sama mag jooju Aline Badara Fall muy directeur de publication bu l'observateur ak i tamit Sophie Baro Euh, ndax euh, ñoo yombal suñu jotaay bii tey mm-hmm, ma bëggoon euh, tonton nga waxante ak sénégalais yi ci li xew seen parti jamono ji ak tamit daal yow yëf yi lu si sa jàngat Aïssatou Diop li ma la bëgg a wax d'abord ci déclaration boobu Moustapha Niass bindoon te obs ak journaux yu bari reprendre ko mm-hmm. bi ma ko liiree munus ne mu ne sut ne du Moustapha ndax moo ko signé mm-hmm. moom la moo ko signé mais texte bi intégralement Moustapha Niass bind ko. Ah? xam naa mbindu Moustapha Niass. Moustapha Niass vaut mu ëpp loolu. texte bind ko kon. yaakaar naa ni bind ko aw ma ci preuve mais yaakaar naa ne keneen ko bind. te d'ailleurs lii muy liggéey léegi waru koo mën a may mu bind texte bu ngandee noonu. Mm-hmm. je sais que Moustapha borom xam-xam la. ku am gëdd la ci bind ak wax kàllaama tubaab. Mm-hmm. mais texte bi ni mu mel. ku mel ne man maa maa ko waroon a bind. Mm. mais Moustapha Niass warta bind texte bu mel noonu d' abord texte boo xam ne bii boo ko liiree doo xam d' abord. lu mu bëgg a wax lu bëgg wax kenn xamu ko. mi ngi bëgg a. jox dëgg Macky bëgg a jox. dëgg CNR yi eh, Macky ñoom Mbow. waaw ngarale dëgg. Mm. Eh, te Moustapha xaw ma ko ci ngarale yooyu. Mm-hmm. donc eh, texte boobu daal Moustapha ko signé mën nañ ne moom la waaye daal doy na waar. Mm-hmm. li ma bëgg a wax nag ci AFP. Mm-hmm. dañu dañoo convoqué bureau politique mm-hmm. élargi mooy bureau politique boo xam ne bi dañ koy gën a yaatal mm-hmm. ndax bu doon poli bureau politique restreint bi nga xam ne euh, région yi dong ci bokk responsable région ñi nga xam ne ñooy région yi dong ci bokk man duma ci bokk mm-hmm. waaye nag dañ koo yaatal maanaam daanaka militant bu bëgg am xalaat bu rafet mën ngaa ñëw ndax Moustapha Niass ñaari bureau politique du koy fermi ndax xam ne ne militant yépp a ndax bureau politique AFP am na fa ñoo xam ne ñi ña nga fa musu ñoo gagné seen bureau électoral fa ñu dëkk mhm. dëkkuñu Ndakaaru ñu nga jëkk ca ajak-jak mais musu ba ñu élire Moustapha président de la l'Assemblée ba tey taxawuñ fa donc bureau politique bi donc ku ne mën na faa dugg koo xam ni ki wóor na ne militant rek mën nga faa dugg waaye nag ci coobare Moustapha mhm. loolu taxoon ma dem fa bi ñu wooyee nit ñi xam nga lu ñu leen doon dajale mhm. li ñu mujj a wax ndax li ñu ba njëkk a wax dañ ne élection yi jub le 29 benn Bokk Yaakaar la ñuy àndal moom la ñuy àndal. Mhm. wax ay alliance li ñu war a def ak nan lañ ko war a placer préparer ak comité électoraux yuñ yu ñu war a def loolu lañ wax ne moom lañ ñu woowoon. Mhm. mais man bi ma xamee ba gis lii xam naa loolu taxul ñu wooñu liñ ñu woowoon mooy lu ñu lu ñu mujj a wax. Mhm. ndax bi ñu waxee comité électoraux yi ki doon liir ba liir ko tagg Moustapha ba ba noppi. daal di la ciy glisser affaire u Malick Gakou. glisser. ànd bi ñuy ànd. dama ko doon liir. Ah, sama xarit la Bouna Seck. mooy ki ma jàppantool moo doon liir. moom nag bureau moo ko chargé mu yor ay élection mhm. moo bindi texte bi liir ko. Mhm. bu ko bindee liir ko xam naa ne bu mel noonu Bouna mënu koo présenter bureau politique te Moustapha Niass d' accord ci. Mhm. donc Moustapha Niass xamoon na lu nekk ci texte bi. donc bi mu ko liiree li taxoon au fond mooy nañ waxante dëgg problème mu Malick Gakou ak and ak Macky Sall. en bi ñu bi ñu liiree ba noppi ñu ne ku bëgg a wax. 43 personnes ñeent fukki nit ak ñett ñoo bindu. pour wax man ca ñëkkoon bi ca ñoo bindu la mais dañ maa yóbbu ci place su vingt neuvième place lañ ma mm-hmm. yóbbu. Mm-hmm. santi añ mi war a wax li may wax euh, ne man ñu def ko vingt huitième place. Mm-hmm. maanaam kii waaye ba tey loolu sax du dara. bi ñu waxee ba noppi ne léegi. nii lu Macky cëralee Macky cëral na Moustapha Niasse defal nañu ay député defal nañu lii donc mille 2017 AFP du am candidat Macky Sall la ñuy soutenir ndax buñ ko defut du jaadu munu mënut a cëral Moustapha Niasse nii mu ko cëralee jox nii ministre ak i député lépp ba noppi 2017 ñu présenté quelqu'un mm. mënta am ma ne man bi ma jëlee parole ma ne 2017 d'abord sori na kenn xamut luy xew affaire 2017 ak ki ñuy àndal ak AFP day am candidat ak du am na ñu ko teg ci suuf ba 2016 au mois de juillet ou août ñu seet ak jamono de bittër ci ko ndax Moustapha Niass bu ko Macky génne woon tout de suite assemblée boo lëggee mu changé position te mën naa am mhm. ndax Macky li tax mu ànd ak ñoom lenn dong la bëgg ku ko jàppale mu nekk au pouvoir pandan cinq mandats. bis boo xamee ni bi xam ne ni ñun ñi amaloon ko benn njariñ dañuy génne sànni. loolu moom politique noonu la demee politique doole la boo amee doolee am gëdd ñu jàpp la boo amatul doole amoo gëdd ñu dindi la. Mhm. donc nañ xaar ba deux mille seize. Mhm. mois de juin nga xam ne élection yi tuutee ci des mbir mi gën a reer mhm. ndax nit ñi nee nañ buy foobee rek kenn du. buy buy taw kenn du foobee rek dëgg la. fii mu ne day taw kenn xamul luy xaw. ba ma ko waxee après ma ne ko AFP ñun ko defee léegi. am na ñetti élection présidentielle yoo xam ne amuñu dara 2017 bu demut élection 2022 lañ jëm deux Macky bu demee ba 2022 mën na teg kenn ko ku nekk APR. Mm-hmm. bu ko defee ñun mille vingt 2027 lañ jëm AFP day dee. Mm-hmm. bu ko defee AFP mel ni parti yi nga xam ne ay kilifa ñoo ko defoon ba léegi dara desatu fa xam nga am na ñaari kilifa yu fi defoon parti yu mag mm-hmm. léegi parti yooyu suñuy alliés la du ma leen tudd. mais parti yooyu dara desatu. bu ko defee nekk. parti yóbbaale ma foo toll ngay négocier may ma lii jox ma lii et cetera di mhm. yalwaan mhm. ñun nag yalwaan jooju nekkuñu ci dañoo bëgg a ñëw pouvoir mhm. en mille 2017 bu nu bu koy yàlla defee bu soobee yàlla AFP dana am candidat ci biir AFP wala mu am candidat boo xam ne ji ci gan ci AFP lay jógee nekk candidat feneen. même waaw bu dee problème mu Malick Gakou. waaw foofu laa bëggoon tax ñu xam ko. Moustapha moo ko def directeur u cabinet Madiayna Moustapha ñas moo ko def président du conseil régional Moustapha ñas moo ko def ministre euh, euh, euh, ministre des sports moo def mali gàkku numéro 2 de l'AFP dindi Madiayna teg ko léegi nag dem na ba nga xam ne Malick Gakou peut-être xëy na démission bi mu demoon ci gouvernement bi ndax am na ay problème avec le premier ministre mm. démissionné démission boobu ba tey Moustapha Niass ba mu démissionné rek laa xam ni kii dina am problème ak ah, Niass. noo ko xamee woon. mais damaa xam Niass dama xam Moustapha Niass ba Malick Gakou démissionné ci condition yi laa xam ne dana am ak problème ak ñas waxoon naa ko ñi ma xam yépp ndax xam naa Niass boo nit boo nekkee moom ñeen fukki at ak dara war nga koo xam. Mm-hmm. man ñeent fukki at yu ma sëkk maa ngi ànd ak ñas man dong maa ko def AFP ci ñi maasee ak man. Mm. waxuma nag mag ñi. ñi nga xam ne ñoo Moustapha ñoo jàngandoo mais ku ci jàngandoo Moustapha li ma def ak Moustapha defoo ko mm-hmm. fii mu ne bu ma demoon wubbi euh, sama walis lettre yi Moustapha yu mu bind ci loxoom yu baree bari mi ngi ak man te lim ci wax man ci lettre yi du ko wax ak keneen mustapha dama daa dem këram sama soxnaa ngi nii bu yeboo nga laaj ko deux heures du matin la ma euh, vingt trois heures la may déposé fii ak Mercedes mooy conduire mhm. def na ko ñaari yoon fii këram laay jóge waxtaan ak moom mu déposé ma bu may déposé ne ma Mamadou je te dépose ma ne ko président yëf yi addina wóoru kilifa nga te on sait jamais mhm. bàyyi ma ma jël taxi mu ne ma non c'est ton frère sa frère moom moo la bëgg déposé wan la ne sa frère la effectivement maa ngi Moustapha noonu la ñu mel mm-hmm. ndax xam na ne man dama ànd ak moom te àndu maa moom ci njariñ ndax Moustapha musuma am benn njariñ ci moom musula may dara au fond est-ce que may na Moustapha may dara may du may njariñ du ay euh, comme sama dama dégg ñun loxo bi gaaw na gaaw may ah, ay dix ay vingt millions ay ah. ay cinquante man de Moustapha musuma may deux million ah xaw fu loxo bi gaawee de li ngeen def yëpp vingt sept ans ah, presque musuma may deux millions de hmm. koo may sa kër gi mayu la ko déedéet Moustapha mayuma kër mayuma deux millions oto taxul ñu ànd hmm. damaa ànd ak moom rek ndax man damaa bëgg Senghor xam ne Moustapha mi mooy prolongement Senghor hmm. ma ànd ak moom maye ak joxe ak njariñ taxul ma ànd ak moom bu doon loolu bàyyi naa ko bu yàgg ngor ak teraanga nag laa ànd ak moom mais xam nga li wax nii euh, li nga wax nii gaa waaw ñëw waaw a yar dem nañ ba léegi nag ñu bëgg dindi Malick Gakou mm. peut-être Malick ingéna on croit que Malick dana defe nañ ne Malick dana nekk candidat en 2017 mais pourquoi Malick du nekk candidat 2017 xanaa Malick bëggul dara Malick day politique bëgg na dara bu soobee yàlla bu nekkut candidat en 2017 man danaa wuti xaalis cinq millions yu ma déposé pour être candidat AFP dana am candidat bu soobee bu Malick Gallou nekk Gakou nekkut candidat AFP man danaa nekk candidat AFP pourquoi Moustapha Niass bëgg noo bloqué te lii Moustapha Niass di def dama la bëgg wax mm. bërki démb jeunes yi Ndakaaru réunir nañ kenn moo leen réunir pour ñu soutenir Moustapha ci ànd ak Macky gars yi bañ réunion ba tas ci xuloo xeex démb démb démb laa wax euh, muy lundi bi euh, mardi bi mardi bii passé mhm. cadre yi ñoo réunir sur vingt et un cadres mhm. trois ñoo fa ànd ak Moustapha ñi ci des yëpp dañoo dañoo bañ dañoo bañ ne lii duñ ci d'accord cadre yi ay jàngkat lañ. Mm-hmm. ñoom it war nañoo bëgg dara. Mm-hmm. kenn du leen jaay Moustapha Niass dama ko ne woon Niass biñ ko defee président assemblée mais léegi nanu dem fusionner APR buñ fusionner. APR disparaître AFP disparaître ñu lépp li ñu yor ñu def ko taal taabali njaago ku ne indi la nga yor mm. ñu tuddee ko beneen tur mm. kenn du ne la kon maa la fi njëkk a njëkkuma fi ak njëkkooma mm. mais bu buñ fusionné woon Macky mooy doon patron bi léegi mm-hmm. Moustapha risque de s'effacer mm-hmm. xam naa loolu la doon bañ léegi mu dikk ne dañuy soutenir Macky en 2017 soutien bi nu war a def ak Macky buñ ko waree def bu nu ko waree def deuxième tour lay doon bu fekkee ñun jàlluñu bu nu jàllee jàll bu nu jàllut képp ku ñuy soutenir it dañ koy def ci condition yu leer ñunu du ñu tëb rek ñu takk ñu comme ay ganaar dégg nga di ñu jox nit lu tax. mais man mais man mais man grand foofu xam nga euh, fan laa bëgg ñu delluwaat fa tuuti mooy euh, ndax yow wax nga fi la am solo li moo tax sama invité ndax yow tubaab nga xam nga yi nga osé wax nii euh, gisuma kenn si waa AFP AFP boo xam ne am nga fit boobu lu tax nga ni Malick Gakou. ba mu defee démission bu rëy boobu. Mhm. ci nga xam ne dina am problème ak ñas. lu tax lu tax ñas lan moo ko war a metti ci démission Malick Gakou ba. mais Malick Gakou bu démissionné. Hmm. te ñi ma dégg Malick na la démissionné. Hmm. man a xajamal diggante ñas ak Macky. te te te ñas bëggul lu xajamal dikkam ak Macky. Hmm. loolu mooy problème kon ñas daal moom. Ah lu neex Macky ma nga ca lu neexul Macky nekku ca. ci li ma xam daal. kenn du ko yàqal daal AFP daal ba mas ñas nekkee président de l'assemblée ba tey. kenn ku bëgg a wax sax ñu ne la noppil ku bëgg wax ñu ne la noppil ku kenn waxut dama lay wax le 16 bi bii passé. AFP di def anniversaire l'appel du 16 juin de Moussa bu rëy ba waaw xam nga thème bi lan la woon. Hmm. les inondations. thème bi les in dama dikk ci réunion bi xool ñu ne les inondations la ñuy traité mais. deux minutes defuma ko bi waa ji toogee ne les inondations ma ne thème bi tey lii inondation ñu ne ma waaw dama jël sama bagage dem. dëgg jëmmi kenn. ñun inondation lu ci suñu yàlla ministre Diop des inondations ñun kay si on traite on traite de un problème politique. ah <laughs> seen saapel bopp mais duñ traité <laughs> dama la bëgg wax leen les dix mille euh, agents yi. Euh, ACP agent de sécurité yooyu. waaw dix mille jeunes yooyu ñu bëgg a recruter. Mm. defe naa léegi formé nañ trois mille cinq cent. bu ko wadd defoon tey mm. i àddina tukki bu fekkoon temps wadd wàdd def ko mm. àddina tukki mm. te AFP kenn waxu ci yéen kay amatoon daa wax dara waaw campagne euh, gerte gi ni bi waaw ñëpp nee nañ campagne bi gën a nasax ci senegal bi gën a metti ci baykat yi campagne ren euh, ren bi la mais kenn déggu ci AFP doo ko ci dégg mais ba pare yéen sax yéen seen bureau politique bi toog ngeen neuf mois yoo xam ne amut bureau politique xam nga mën naa am man naa bañ a am mm. accéléré ko mais mi ngi fu politique bi toll na mm-hmm. bu politique bi jaxee bureau politique yi ñu koy convoqué bu politique bi jaxul nag mm. ñu bañ di convoqué bureau politique yi mais def structure mm. def nañ nag benn structure xaw ma chargé des stratégies xaw ma lan mm-hmm. euh, ki ko diriger dégg nga xam nga lu ko gars yi tuddee sax ñu ne képp koo xam ne kii amoo loo def rek alxames mën nga faa jaar déglu ñu naan stratégie yëfi caaxaan yooyu maanaam wane ne ñu ngi ani par animé parti bi di kenn animé wu tous mm. l' animation d' parti ça se fait à la base mm. avec des moyens mm. mais mais man ah. grand euh, euh, euh, maître Abdoulaye Babou mm-hmm. nga xam ne moom i tamit ku xam Moustapha Niass la wax na te yàgg na ko wax tamit nee na Moustapha Niass moo di koo xam ne moom daal buur lay àndal daal te buy ànd ak buur tànk mi ngi ànd ak buur buggul kenn ku ko yàqal ku bëgg a xajamal cereem mu jël xaj la sànni la fële. Euh, yow itam li nga wax tamit ak li Sénégalais dëgg la mooy Moustapha Niass fi mu ne jaay na AFP pour pour pour ne Macky Sall waa léegi loolu tey ji Moustapha lan la nammati ci àddina ndax ñëpp jàpp nañ ne milliard yoru ci benn yoru ci ñaar ay fanweer la ci yor namatul dara lan moo tax ba mu war a langaamu nii euh, ak ak déclaration bu choquante boobu mu def nga xam ne ñëpp a jommi dégg nga man man j'ai pas compris grand lu tax mu lu mu war a langaamu nii ci ginnaaw Macky Sall par force. waaw Ablaye Babou li mu wax dama lay wax ne sama nijaay la. Mm-hmm. yàgg na ñoo xamante ñeent fukki at ak ñaar ñu nekk. Mm-hmm. jeunesse socialist mm-hmm. sama nijaay la li muy wax duma ko duma ci teg dara. xam naa li ma xam mais gannaaw sama nijaay la di sama mbokk mënumaa mhm. wax dara ci maître baabu la muy wax mhm. waaye li ma la bëgg a wax mhm. jaay AFP Macky Sall quatre vingt cinq pour cent mën naa waat ni d'accorduñ ci du jàll lii Moustapha Niass bëgg def ce sera son dernier combat peut politique mais ce sera un échec extraordinaire mënu ko réussir duñ ko nangu Moustapha Niass léegi politiquement 2017 Moustapha Niass dana am 78 ans. Mm, bokk bokkut bokk bokk bokkutut 78 ans. parce que Moustapha Niass moo ma wax man ak moom. dang mu ne ma man Mamadou jeune duutuma nekk candidat ci dara. Mm, mënut ko nekk sa duutu nekk candidat élection présidentielle du ko nekk législative. Mm. Moustapha Niass xam nga lu muy gérer fii mu ne. nan lay def ba nekk assemblée ba 1917 euh, ba 2017. noonu lay def. man maa ngi koy ñaanal mu nekk ak Macky ba 2017 ndax assemblée bi te tenir na assemblée bi ndax gars yi respecté nañ ko te xam na liggéey bi. Mm-hmm. maa ngi fàttaliku euh, bi kii ñëwee euh, kii comment ça s'appelle Hollande ñëwee assemblée discours ba mu fa def ba mu waxee Hollande ba noppi la Hollande yo yolomal visa yi. Mm. donc Moustapha ñi nekk assemblée actuellement comme député Moustapha Niass moo ci ëpp gëdd pour yor assemblée. Mm. donc kooku Macky dana ko fa bàyyi. Mm. donc jaru ko. kon jarul mu toroxal boppam nii. du toroxal sax boppam. Mm. mais ñas dafa am ñu nekk ci gannaawam bu ñu xëyee ne ko mën ngaa nekk César le roi romain. Mm-hmm. César ñi ci des bu ngoonee ñu ne ko bu la neexoon nga nekk le pape de Rome maanaam lu ko neex dong la ñuy digal dugal ci kii mm-hmm. dama lay wax benn kii. Mm-hmm. Chirac dafa dafa defoon benn appel nekkoon hôpital bu ñuy wax Cochin bind ab appel pour bombarder Giscard d'Estaing. booba Giscard président la. ba mu ko defee jabar ja moo jóg ña binduloo Chirac loola muy Yves Guénan Pierre Juillet ak Marie-Françoise Garou dafa dem génne leen ne leen yéen da ngeen a bëgg a yàqal sama jëkkër ndax Chirac temps boobu bu jàmmaar la woon Giscard Giscard da koy rey mhm. ndax boobu amagul doole dàq ñu après le Chirac dem ba nekk président de la République mhm. ñiy wër ñas ñoo yàq lépp lépp lépp ñas fii mu ne tant que mi ngi dund dana am kër gu baax Mm-hmm. am oto bu baax mm-hmm. am dund bu baax bu tawatee lu ma ko mën a faju ñas yàlla desee lutu ko dara dara ci àddina mm-hmm. li ma koy ñaanal mu gudd fan lool wér lool bu fekkee boromam mu yóbbu ko jànnatil si gi ñuy ñaan ñun ñépp loolu laa ko ñaanal li may ñaan ñas lii na ci génn def benn congrès vers le mois de décembre woo parti bi def congrès partie bi seet ku ko neex mu jiital ko. parce que succession foog mu am. succession du am duñ ko nangu. mais moom nee na mais mais moom ñas nee na. Euh, même bu yor kaan sax. Euh, ak ay beek yi ñu koy bëmbax dëkk wala dëkk ci fauteuil roulant ak yooyu. du bàyyi bopp AFP. loolu nit ñee ko wax xam naa ñas du wax loolu. je te dis ko wax ñas du wax loolu. parce que xam nga actuellement nii. ñas euh, moo fi dem ci bàcc li. congrès LD. ne bàcc li ñeenaa la yow fexe nga ba dem man xaw ma nu may def ba dem ku bëgg a dem kay. te gaa yi fii mu ne bëgg buñ sañoon eh, nga seet nooy def. ba joxe parti bi. doone danaa fa toog. ba mm-hmm. parti bi. mais man mais man parce que ah, loolu moom du wax ñas. ah mais mais man xam nga xam nga tonton fi mu ne nii. Mm. ñu bëri ñu ngi naan wax dëgg yàlla eh, ñas mi eh, est-ce que tamit lii li mooy lu olof di wax ku iñaane sa ndono sa dee ñaaw fi mu nii est-ce que xawul dugal je sais pas benn petit benn benn benn petit ay xolu ki ñaan yooyu dégg nga bañ a xale yi benn xale daal du dem ñas ci boppam ma xam mm. iñaan ak haine du jikkoy ñas xamu ko xamu ko le fond du problème ñi bëgg a jariñoo ñas mm-hmm. ñoo bëgg mu toog tout temps nekk secrétaire général de l'Assemblée Euh, xaw ma secrétaire général de l'AFP ndax ñoo ñooñu jëkkaguñ pour remplacer Niass mm-hmm. te ñoo ñu bëgg nañ ko te xam nañ jamono jii mënuñu ko donc ñu làqu ci gannaaw Niass mm-hmm. naan ko defal nii defal naa defal nii defal naa ndax ñoo ñooñu pareeguñ mais Niass añaanewut kenn bu sañoon AFP mooy nekk le premier parti du Sénégal ndax def na ci ñaqam def na ci xalaatam def na ci alalam waaw justement ci alalam jooju alalam jooju euh, euh, fi mu nii wax nga sànq nee nga pour cent ci waa AFP du nu nangu lii nga xam ne moom la ñas bëgg a def waaye man dina ma jaaxal ndax euh, Moustapha Niass kat moom mooy principal bailleur de fonds bu AFP moom sax wax na ko seen bo boobu nee na euh, AFP du am candidat te ku waane ku waane ba ne da ngay dem déposer sa candidature tamit du la financé kon fi ñu toll nii yéen ñi muy yow ak say ñooñ ñi nga ñi nga bokkal xalaat ban ban ban possibilité ngeen am pour mën a imposer seen bëgg-bëgg bu fekkente ne ñas moo yor xaalis bi ndax moo rek mooy joxe xaalis ci kër gi mooy joxe dépense. financement yooyu ñas wax. Hmm. am na ki dàq joxe xaalis le principal hmm. bailleur de fonds maanaam ki dàq joxe xaalis ci AFP hmm. mooy ñas. loolu dafa war a nekk benn ñas ci ëpp ëpple waaye ñun ñëpp dañuy def ci AFP ku ne nag dangay def ca sa man-man toll. wolof nee na salaire akub gasam mhm. njaxat akub gasam mhm. ñas bu fekkee ne am na cinq cent francs di def deux cent cinquante man ma am deux francs di def un franc mais ñoo yemle li muy def laay def mhm. parce que ku ne da ngay def ci la nga am te ñas wolof nee na borom wëlu ah, mooy fara dënu gaynde donc moom mooy patron AFP moo war a def moo wa AFP maanaam Ablaye Wade bi mu nekk secrétaire général du PDS pendant vingt six ans lépp moo ko daa joxe gars yi ci gannaawam opposition metti yoru ñoon dara ñun ñi àndoon ak ñas aussi xëy na yàlla xam doy na mais bu nu amoon li ñas am man bu ma amoon li ñas am def lu ëpp li ñas li def. d'accord léegi léegi ba ca des mooy euh, xam nga. Euh, attends da nga ma laaj. Mhm. bu demee ak xaalisam. Mhm. mais ñun danañ trouver xaalis. fii mu ne Sénégal gii ñu ne addina bii ñu ne. bu nit ñi wóoree ne yow mii war ngaa mën a doon président Sénégal. ñu jàppale la ay wali si xaalis lañ lay indi mhm. bu nu amoon candidat bu crédible. Mhm. bu nuy tëgg rek ñu indil ko xaalis. mais fi ñu toll nii yow Malick Gakou daa mooy sa candidat. Malick Gakou mooy sama candidat tey ci. mais est am na fit mais est que am na fit est-ce que am na parce que dafa mel ne amul fit ah, dafa mel ne euh, yan bi ngeen ko yan noonu fit bi fit bee xaw a des. xam nga fit ak yooyu yëpp. Ah. xam nga kañ la xam Malick am na fit wala amut fit. Hmm. xam nga wolof dane hmm. bu njaab yàggee gawar feeñ Malick xam nga nit bala nga ko xam dëgg-dëgg événement yi ñooy wane nit ki hmm. des événements extraordinaires ñooy indi nit ki Moustapha Niass bi ñuy def l'appel du 16 juin hmm. avant muy quitter PS un jour masa cee waxtaan ak Ablaye Wade à la rue des Ternes mu ne ma Moustapha Niass ne quittera jamais le PS mais parce que dañ koo defutoon boobu lu ko jar bañ ko defee lu mu da ko jar dem euh, quitter na PS nu ànd ak moo mais mali Gakou mii aussi bis bu ñu ko defee lu ko jar bu booba il prendra ses responsabilités. mais mais kon su ma mais léegi nag fii mu ne. génn hmm. génnuñu AFP tey. Ah. génnuñu AFP ëllëg créé wuñ dara. ku leen dàq nag. buñ ñu dàqee nag ñu xam ne dañ ñoo dàq te ku ñu dàq dootoo ko dolli Macky Sall Ablaye Wade dama ko dàqoon. Hmm. bëggoon na koo jëli te mënu koo jëli te gis na lim jël. Hmm. dàq moom. kenn duñ ko def mën nañ ñoo xatal bundu xataalu loolu ma nañ ko mais justement parce que parce que parce que yow yow euh, euh, euh, depuis semaine bee weekend bi yow def na communication bii nii tamit tey tamit xam nga télé la moom yaa ngi ne fànn waaw waa léegi ñas mbaa du la woo defanteeg yow mais ñas lan lay defanteeg man mais ñas bu ma wooyee ma wuy si ko mm. xanaa ñas du ma woo di ma dóor loolu du jikkoom aussi mm. loolu ñas xalaatu ko sax mm. ñas n'est pas violent la ñas mag la na ñas meloon temps yu jeunesse social dans les années soixante dix Sénégal boo nekkee jullit boo màggatee rek sa wextan dañ mhm. boo amee responsabilité yu ngand sa wextan dañ ñas yorutul wextan woowu mhm. bu woo di loolu <laughs> ay surtout ñas xalaatu ko ah, <laughs> bu wooyee nag pour ñu mhm. waxtaan danaa ko woo dana danaa ñëw wax ko li ma xalaat danaa ñëw wax ko li ma xalaat ba àddinay tukki nag duma ko wax lu ñaaw du ma ko wax leneen lu loo xam ne li safaan la uh-huh. duma ko wax ci géew du ma ko wax feneen waaye nag bi su ma amee lu ma koy wax wax ko ko bi muy def l'appel du 16 juin texte boobu c'était un texte très dur contre le PS e uh-huh. mais lii ñu wax fii ñun uh-huh. ñas la ñas wax pees moo ëpp doole fuuf te ñun waxuñu ko tax baa ngi ne fàng demal ngeen liiraat ko ñas moo nu jàngal résister xam nga lu mu leen wax lu mu ñu daa wax lu mën a xew seen liberté bu ngeen ko ñàkkee rek ñàkk lépp ca nga nekk yow ñas moonu ko daa wax ca nekk moo ma ko jàngal waaw moo la ko jàngal kon yow yow yaa ngi tere la nga jàng mais mais mais léegi euh, euh, xam nga euh, Malick Gakou ñëpp jàpp nañ ne fi nu nii AFP xanaa mu am ay milliardaires yu làqatu hmm. mais ñëpp jàpp nañ ne AFP bu ñuy wër actionnaire ñaar daal ñaar lañu hmm. bu mag bu mag bee mag bi mooy Moustapha Niass deuxième ba Euh, mooy mooy Malick léegi nag sa noon yi Ousseynou Gëmbal euh, Ousseynou Gëmbal mooy <laughs> mooy sa rakk ja ma koy nuyu waaw moo la gën a xam mooy sama xarit <laughs> ancien directeur des bourses hmm. euh, kooku ma koy nuyu bu baax xam fu féete Mamadou Gëmbala hmm. sa noon yi dinañ ne Gëmbala mi toog fii jàkkaarloog àddina di di di di jéem a tungóob Malick Gakou Malick Gakou mi xam ne dégg naa loxo loxo bi daa bar mhm. daa gaaw a maye mhm. daa gaaw a euh, euh, loxo ci poos mhm. maa yow baddilu la dara moo tax yéen nga taxaw di ko di ko défendre nii ak ak ak di ko dooleel di ko may fit ndax maali Gakou moom wax dëgg yàlla fitu banlieue ba may dégg ci moom gisuma ko Malick Gakou am na fit wala amut fit hmm. nit ki moom kenn mun a xam fitam tant que épreuve ñëwul bu épreuve ñëwee rek ñu xam hmm. am na fitam amut fit may na la xaalis wala may la xaalis defante naa ak yow lu bi may dem Màkka hmm. ne ko Malick damay dem Màkka na ma ma ñëw këram mu jox ma deux cent mille fekk na ma jënd sama billet màkka ba noppi boo xam ne maa ko génni ñàkk ko muy xaalis bu lew ndax màkka boo fay dem am na alal yoo xam ne yi boo ko paasee yóbbu ko màkka yi demoo màkka ba ma yóbbu màkka maa ko def nii ñàkk ko mhm. bal yi ñuy fetal may daw ñu ma koy fay mhm. mooy bi ma nekkee Nations Unies en Côte d'Ivoire Nations Unies boobu bu ma nekkoon Côte d'Ivoire nag mhm. Bouna sekk mii moo ma fa yóbbu moo rakkam Bekkaay Seck nga xam ne moo nekkoon chef ba Bouna moo ma fa yóbbu maa ngi ko ci gërëm bu baax moo tax politique a demee noonu rek maag Bouna danañ ma sa àndaat ndax àndoon nañ tàggoo àndaat bii am problème bi bu na mos nañoo ñoo tàggoo hmm? ah ba Djibo Ka ak Moustapha Niass jàppante man Moustapha laa àndal bu na ànd ak hmm. xam nga c'est la première fois man Moustapha laa àndaloon hmm. booba ànd ak sama ànd ak Moustapha li ma ci góobee ciw naqar ak metit nit musu koo am xam nga Cheikh Ibra Fall ñaata at la ànd ak sëñ nekk di muritu ñi ko xam ñëpp nee juróomi at la muritu sëñ Touba sëñ Touba defal ko lim ko defal ba defal bi àgg ci sëtam bay àggaat di àggaat di àggaat ba sañ Touba ñoom ñëpp ñooñu bu soobee yàlla ci kàttanug suñ borom sëñ Touba dana leen yóbbu àjjana yomal xiyam ci kàttanug suñ borom mm-hmm. ci juróomi at rek la ànd kook Moustapha ànd naa moom 42 ans mm-hmm. donc bu doon defal Moustapha ba bàyyi naa ko bu yàgg bu doon defalit dana tax du ma ànd ak Malick Gakou fii mu ne duutuma gone lu ma nit di defalit daanaka bëreetut mm-hmm. donc jàkk ji ngi gis foofa laa dëkk di ñaan yàlla di jéggulu li passé donc ay defal ak ñàkk defal logique boobu nekkatuma xam nga logique bu ma ne Malick Gakou actuellement dans l'AFP ak lu ñu mën a wax moom lañu wane ba ñu xam ko nit ñi xam ko c'est le meilleur pour postuler au poste de secrétaire général bu ñas demee keneen amu fi dégg naa nag gars yi di wax naan y a vingt personnes qui peuvent l'être rek nangam nangam am na ci koo xam ne il avait poussé le bouchon tellement loin naan xam nga AFP ku ami bokk moo ko mën a yor ak nangam ma ne ko waaw ku amuti bokk Sénégal xoolal ma yooyu ko te bureau non c'est bu lañ ko wax da ngay kii te moom foo mu dëkk mosu faa gagné dara. du fa dem sax déedéet du la ko wax. jàppale ma kan la. ko wax sama sëriñ la. du ma la ko wax. duma la ko wax sama sëriñ la. la ko wax du la ko wax. kooku ay moom duma la ko wax moom. ah dee ma ko kon ko dee it <laughs> duma la ko dee duma la ko wax duma la ko dee waaw léegi tonton sama tonton nga ma ci neex lu ma si gën a jege rek. ma ma ma ma ma yow sax moo ma gën a. jëm jeex na fi toj na waaw. waaw léegi kon bàyyi ma dóor la grand man grand laay ma petit papa moo ma gën a. petit papa tegal fii loxo waaw petit papa. yow yaa petit papa yaa petit mm-hmm. euh, am na lu mu tekkee nag du ma la ko wax aussi. maanaam du ma laa ci ginnaaw de dégg naa ak maanaam ah. waaw nañ bàyyi ba nu wéet. ñu bàyyi ba nu wéet yow hors antenne. léegi mm. euh, ñu bëri jàpp nañ ne euh, euh, fi mu ne Moustapha nag li waral jayi jayi beeg ak yooyu noonu yëpp plan beeg yooyu li tàngal xolom mm. li ko li ko li ko li ko li ko baxal. Mm. mooy Ousmane Tanor Dieng mi nga xam ne ndeysaan rival boppam la xam nga ni nit day am ami personnel. Jatu Njaay mi am ennemi personnel. moom moom Moustapha ñëpp jàpp nañ ne ennemi personnel am rival am wujjam ku muy teganteel bët ku muy defanteel Ousmane Tanor Dieng la. tey jamono ji ku ne xam ne ku am bët ku ne yaa ngi gis ne Macky Sall moo bëggal boppam moom Ousmane Tanor Dieng président Macky Sall daal bu ne fiiw fiiw ci avion ya Tanor ci valise ya mm. euh, paa nag ñas euh, loolu. Euh, euh, baxal na xol bi daal moo tax mi ni nag wàcc boo gis daanoo ci gën a gaaw tanoor moom comme dañ koy yóbbaale doog ma dugg ci valise ba man naa woon Macky naa def lu rëy Macky xam ne entre tanoor ak man ak tanoor c'est pas la même chose mu yëkkati AFP ko jàpp teg ko ci table bi ànd nga man sama raisonnement wala ngay wax ñu baree bari wax nañ ko mhm. mais boobu am ne am na diggante tanoor ak ñas mhm. ba ñu def assise yi ba def Benno Siggil Sénégal wax sénégalais yëpp candidature unique benn candidat la ñuy am di ko wax nit ñi di ko wax nit ñi di ko wax nit ñi ba mu des ñu ne élection yi jum na ñu ne déedéet mënatuñoo ànd léegi ku ne day demal boppam ba ñu demal leen seen bopp lu sa xew Macky Sall raw leen romb leen dem romb leen dem <laughs> xam nga wolof nee na mm. naa bàyyi kii proverbe boobu sax parce que ça risque d' être très dur te day gaañ ni day kii. mais ni ma la déedéet. man man bu saf laa bëgg ah, déedéet loolu kay du ma ko wax boobu. Mm. xam nga ñoom ñaar li leen daal. Mm. ku ci nekk la nga bañaloon sa moroom. Mm. yaa ngi koy defal. Euh, Macky Sall dëgg la. ku ci nekk la nga bañaloon sa moroom ña ngi koy. defal muy jiite waaw. jiite nga topp jiite waaw. Moustapha Niass ba muy dugg politique. 58 la Moustapha Niass dugg politique. Mm-hmm. moo ma ko wax booba Macky defe naa. ñëwagul àddina 61 la judd waaw ténor mm. ba muy nekk administrateur civil mm. defe naa booba Macky parental la war a doon dëgg dëgg ñoom léegi ñu ngi ànd ak di doo dàqee nekk si ginnaaw waay ndeysaan dama leen a xaw a kii sax ndeysaan <laughs> billaahi xam nga bu ñu àndoon lii lépp du ci ne d'autant plus que ñoom ñëpp ay socialiste lañ wallaay ils sont ñoom ñëpp socialiste lañ oui ñoom ñëpp socialiste ah, nekk ci ronu kii ci ronu Senghor Diouf la jaar Moustapha Niasse Senghor yar ko donc mu ngoog mënoon nañoo ànd. ñun ñii man mii parti social yi bu ma defoon maison du parti fii mu ne. Mm. Mm. mais ñëpp laay mën a nuyu. Mm-hmm. ñu fa ku fa maasee man rek xam naa la. Mm-hmm. donc ñoom àndoon na gën léegi nag tas nañ seen côté léegi ñu ngi topp ci Macky. topp xale mu ndaw topp ci Macky du xale sax ndax président. Mm. boo ko gisee de comme li ñuy wax pour une âme bien née la valeur ne dépend point du nombre ah, d'années. dëgg la Kennedy bi muy nekk président de la République des États-Unis boobu amul ma ah, oh, oh, oh, moo gën a tuut Macky ay at. Mm-hmm. te teewul nekk na président de la République nekk l'homme le plus puissant du monde. Mm-hmm. donc at yi moom góor bu xasee weesu 30 ans rek. waaw dëgg la te moom tamit ah, seen rivalité seen kéeg yooyu. waaw seen matante yi seen mat loolu bu fekkee am na. Mm. mais gis nañ jur rek. Mm-hmm. jaru ko woon ci ñoom. ah mais mënoon nañoo kii. mais quand même ah. mais mais quand même euh, euh, tonton gi jàppoo ne. dëgg-dëgg président Macky Sall quand même aay na parce que réussir na loo loo xamante ne nii maître Abdoulaye Wade amu ko woon. Hmm. mooy Ousmane Ousmane Tanor euh, ak ak ak Moustapha Niass daw ci ginnaawam di door daake hmm. naan ni tëb ku ne ku ne. ku ne wër boom boom hmm. bokk ko jox ak lem ak yooyu pour neexal ko. fort na xam nga lu tax a bañ a am loolu. Wade biñ koy élire Sénégal en 2000. bu nee Sénégal yëpp dugg leen ci géej gi ñu dugg ci géej dëgg la dëgg la. Wade Sénégal yi dañ ko yëkkati woon. waaw ko góor gi mu liggéey loolu lañ doon wax waaw benn homme politique mënu dëgg la Wade ba 2007. mu gagné élection yi démocratiquement normalement. xam nga da dégg nit ñi naan dañoo sàcc naa nga mën a. 2007 wàjj wàjj wàdd sàccut fenn dafa gagné élection yi. Mhm. démocratiquement la ko gagné premier tour. Mhm. sàccut wàdd sénégalais yi ñoo ko bëggoon. Wade bëgg Sénégalais yi Wade Sénégalais yi ko bëggoon bëgg Sénégalais yi Wade nag après la ko xale yi topp moom it gis nga rek. Mhm. nit ñi lay topp. tubaab nee na Dieu préserve moi de mes am de mes ennemis mes amis je m'en donc ñi la woon ne bëgg nañ la mhm. toujours topp la politique di la réetal di la xalam ñoo lay dugal ci kaw. comme kii boobu nga wax affaire Macky lii Macky am Macky mënutoo bañ a am loolu ndax Macky vingt six pour cent am au premier tour loolu fu mu ne mooy électorat am Wade deux mille en deux mille deux ou trente trois pour cent bokkuñ y a une différence assez énorme te Wade ñëpp a ko bëggoon bokkut Macky lii mu dajale dajale na ko mais dajale mi ba kañ di dajale parce que ñun AFP moom suñ position c'est clair. waaw leer na qu'il pleuve ou qu'il vente. waaw qu'il pleuve ou qu'il vente AFP. 2017 2017 dana am candidat candidat bu jógee ci AFP wala des flancs de l'AFP. parce que yow des flancs de l'AFP yow hmm. liir naa sa interview bi nga def ak fi Barro bu hmm. l'observateur nga dem ba wax wax ci ne yow euh, ànd bu su ànd bu jotee dem ànd ak socialiste bañoo ko. mais bañu ma man socialiste la. samay mbokk ak samay xarit ñi ngi dans le camp socialiste camp socialiste xam nga lu taxoon mu jóge fa bi Diouf jëlee yëpp jox Collin Collin di tubaab bu xong coy ñu am indépendance Diouf jël yëpp jox ko booba laa dem man je suis ba ma demee boobu Moustapha Niass demut Moustapha 2000 la dem man je suis parti en 84 85 ou 83 xamatuma date bi mais man booba laa dem booba laa dem Diouf après naan ouverture et rénovation dugal ko ci loolu tax parti so looloo tax ñun ñëpp ñu génn parti socialiste bu ma meree génn bu ma d'accord tut génn ah. ñas ba mu d'accord génn na léegi eh, lim nu def d'accorduñ ci léegi nag euh, euh, àddinaa ngi seen kanam àddinaa seen kanam mbir mi moom man Moustapha Niass bu fekkee dama koy jox xalaat mhm. na jéem a def congrès vers le mois de décembre mhm. passer le témoin mhm. ndax mag la amatul lu muy yootu ci àddina loo xam ne lii alal la wala ndomba tànk wala daraja mhm. daraja ju ne Moustapha Niass am na ko Sénégal ndomba tànk gu ne am na ko Sénégal mhm. ñëpp respecté ko ñëpp bëgg ko mu am sutura sutura soosu bu mu ko dindil boppam gars yi ci gannaawam bu mu leen topp bu mu leen topp mais mais léegi nii léegi léegi parce que euh, tonton temps bi léegi mu jël lu ñu desee matatul dix minutes euh, Cissé Lo ci xam nga dagg na ci langue ga mhm. ah ma nga nuyu sama chéri boobu na euh, maa ngi ñëw si yow fees a ngi ñëwaat ma nuyuwaale euh, euh, euh, sama sama sama waale boobu Ndeye Gueye mooy mooy soxnaam sa Cissé Lo dagg na ci làng daal di ne léegi sax ndax ndax ndax li ñas def dafa leen a neex ñoom dugg seen xol ba nga xam ne nii Cissé Lo daal taxaw ne képp koo xam yaa ngi ànd ak président Macky Sall daal na Moustapha Niass yëbb ci yow defal li mu def mooy jël neel daal sa parti bu mu am candidat 2017 wa illaa nga abal leen seen gouvernement gis nga lo waxi Cissé Lo sax duma ko commenté hmm. duma ci dolli dara waaye gannaaw politique la hmm. dana am rek lu ma wax hmm. lii Moustapha Niass def Moustapha il met la pression sur les autres waaw waaw est-ce que sax loolu taxut mu def ko sincèrement plan est que déggoowu ci président Macky Sall ah. pour mettre la pression sur les gens naa ko nag mën naa am ndax politique lu ne mën naa am dëgg la est ce que Macky Sall déggoowu ci moom waaw waaw waaw waaw pression la pression la pour mettre la pression sur les gens dóor ñee hmm? mais yooyu amul njëriñ ay sëtu hmm. Tanor du mooy élire président deux mille 2017 dama koy wax jox ko exemple rek hmm. j'ai beaucoup de respect pour lui Moustapha Niass du mooy élire président 2017 Amath Dansokho du moo koy def. Ah, du keneen a koy def xam nga kuy élire ay bàcc la ñooñu xam nga kuy élire ñoom ñëpp kenn du ci élire Macky Sall ñi ko élire mm. mooy les sénégalais de la base lambda yoo yi léegi dañoo yeewu waaw waaw kenn mënu ñoo gis nga ay surtout yow miy jàng nekk ndakaaru gii mm. Colobane gëlee ma dëkk wetu xel koom boo fa mm. demee ñoo ñee nekk ci euh, ron yi wallaay la ëpp xam-xam fuuf ci àddina kenn mënatu leen a mm-hmm, nax mm-hmm. ànd ki politicien taxut ñu élire la ah, Moustapha Niass 2012 mm. mm. mm. amoon na vingt huit partis yu ko soutenir am vingt neuf chefs d'association yu ko soutenir fu mujjee am neuf personnalités yu ko soutenir xam nga ñaata la am treize point six Macky Sall coalition Macky bii ak coalition Tanor Tanor moom daanaka amutoon coalition mais am na onze et quelque te àndutoon ak kenn donc PS la woon Macky ñi ko soutenir ba tey coalition Macky demee wutoon noonu Moustapha moo ci ëppoon coalition mm-hmm. fu mujj il est venu troisième derrière Macky donc coalition yooyu di dajale yi nit di def de la politique politicienne amul njëriñ te gis nga mhm. waa APR buñ continuer nii mhm. ils vont braquer tout l'AFP contre parce que pression bii ñuy def Moustapha wax lii rek ñuy kii il risque de braquer tout l'AFP contre eux waaw mais na tonton yéen yéen euh, si jamais vous braquez contre l'APR est-ce que nag waa waaxum gëlëm faalewul euh, picc. wala wala wala wala waaxum gëlëm. mais faalewuñu leen di xam nga lu tax faalewuñu. Hmm. ils sont euphoriques à cause des cent ah. milliards yi ñu am. mais 600 milliards yooyu. dama e e yooyu ñu yooyu chinois yi bu ñu lay defal. Hmm. dañuy ñëw ne la temps la xaalis bi. mettre nañ à ta disposition maanaam 200 milliards. Hmm. damay jël chiffre bu tuuti rek. lay def ne la 200 milliards da ngay wax loo bëgg ñu defaral la ko. nga ne. kër gi laa bëgg ngeen tabaxal ma ko route bi ñu indi seen matériel indi seen ouvrier tabaxal la facture de deux cent mille ne la facture bi ngi nii condition yii nga koy fay gis nga lii xew à Paris mm. euh, groupe de lan xaw ma nu mu euh, club de Paris ba doo du club de Paris am na benn PSE e, nañ ko PSE dafa amba ah, oh, la sax groupe consultatif bi moom la tudd bokkut club de Paris mm. groupe consultatif Macky Sall dig nañ ko trois mille sept cent mais dafa am ay conditions dañ la naan mën nañ laa xañ na mën nañ laa jox lii bu fekkee lii ak lii ak lii am na. Mhm. conditionnalité conditionalité am na yu ma ci dégg yoo xam ne buñ ko defee fii plan de réajustement structurel la ñuy dellu. Mhm. te buñ delloo plan de réajustement structurel musiba am ndax defe naa gis naa ci journal bi. Mhm. benn expert wax ne. conditionnalité yi coupe sombre dans le budget de l'éducation gi ci. coupe sombre. dans le budget de la santé gi ci flexibilité du marché du travail maanaam contrat à durée indéterminée ci tra liggéey duutu am mhm. ak yu demee noonu donc loolu mënu ko def Sénégal duñ ko nangu mhm. te deuxièmement Sénégal taux de kaalis bu buñ ko mësaa dikk musu cee weesu cinquante pour cent mhm. maanaam buñ ko diggee mille cinq cent lay am ndax condition yi ñu lay wax doo ko réunir mhm. te fii mu ne européens yi diggee problème Ukraine a am mhm. il faut aller sauver l'Ukraine donc beneen problème posé na mhm. gars leen diggoon xaalis bi te ñee ñoon seen mbokk mbaa duñ ñuy wut. buñ ko amee feneen ah. wala lu ko. parce moom foofu moom foofu moom foofu moom ñu jàll ci leneen rek mooy sénégalais yi. xam nga ñoom. mais attends j'ai pas fini mm. avec gars yi euh, APR yi. Mm. xam nga gars yi APR yi. bu fekkee ñi ngi continuer di wax nii. Mm. danañ pousse Macky Sall ci ci ci ci ci loo xam ni demewut noonu. comme lan parce que maanaam euh, euh, pour mu tàggaloo ki allié. politique Mitterrand doon na wax politique bi ma gënal politique. Mm-hmm. mooy politique boo xam ne da ngay plus di mm-hmm. dolli. waaye politique gu soustraction bëgguma ko. Mm-hmm. te ñoom li ñu bëgg accaparer lépp. dégg nga te doole ji PDS amoon APR amu ko. waaw mais léegi foofu euh, tonton parce que man dama gis. tamit Macky Sall en n'a pas le temps en dix ans de faire un grand parti. mais nag mënu amu ko mais mënu ko ne ànd ak alliés yi rek parce tamit. xam nga lu mu a def. Ah, mënu ko ne ne xam nga su ma doon Macky lu may def. dinañ yóbbaale rek may def ah. dama naan eh. Sénégal la ma tax a jóg comme li mu wax. Mm. la patrie avant le parti moom laay appliqué. Mm. ku ci mën a ànd ak man ànd ceeg man ku ci mënta ànd nga dem. Mm. bu ma amee deuxième mandat xayrun bu ma ko amul xayrun et bis bu demee ñu xam ne lii moo tax mu dem Sénégal yëpp dañ koy tàccu. te Macky est jeune mën na liggéey ci instance internationale bu ko neex. ndax fi mu àgg. ku fa àgg dara jombatu la ci. d'accord mais mais man tonton euh, parce que temps baa ngi dem. Euh, mooy. Euh, wax dëgg yàlla tamit benn bokk yaakaar euh, hmm. président Macky Sall aussi man des fois dama koy xaw a dama koy xaw a yërëmaane parce que tamit wax dëgg yàlla xale bu ndaw ah, donte sa président nga ah, ay paa ñoo la ngaamu si yow rek paa yoo xam ne mosuñoo dem dégg euh, mosuñoo gis yoonu dem ba ba fay taxaw di bëgg a dem ñoo bëgg la ngaamu ci xale bi nga xam day dem rek tëg ko bàyyi hmm. dégg nga ndax benn bokk yaakaar amul benn sens bay am njariñ ba ca des beneen bi nga xam kenn déggatu ko Macky 2012 dafa naa sax yóbbu nañ ko ma ngay nelaw fële cimetière yële yoof yoof Macky Macky 2000 dafa naa soriwul yoof dégg nga bële benn bokk yaakaar dundul deewut kon est-ce que tamit président Macky Sall daa war a toog rek ngeen xoj ko ni paa yi euh, yow boole ma ndax yow sama petit papa nga mais yeneen paa yee xoj xale bi rek dégg <laughs> ne ñu la mooy pourquoi pourquoi yéen ngeen c'est ràngeenu Macky Sall mënul dem sans ses alliés yooyu mais mais mais mais yéen sonal ngeen xale bi Macky 2012 du ma ci wax dara. ndax quoi qu'on puisse dire. mille 2012 am nañ mérite ndax ñoo àndoon ak Macky. booba xamuñu woon Macky dana gagné déet donc ñoom ñoo àndoon ak Macky am nañ mérite quoi qu'on puisse dire am nañ mérite. mais Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne dañoo ñëw après. waaw deuxième tour lañ ñëw. Mhm. mais deuxième tour bu ñu ñëwoon Macky gagné bu ñu ñëwutoon Macky gagné. waaw dëgg la ku ne xam na ko. dëgg la ndax Sénégal yi joxoon nañ ko bokk. Mhm. donc ñëw nañ Macky gagné nañ. Macky ne gouver gagner ensemble gouverner am na lu mu leen jox mais Macky dafa war a bañ nekk otage yu quelque waaw moo war a bañ moo war a bañ dëgg la moom lañ fal keneen président Macky Sall bañal moo war a def président Macky Sall ah, bañal bu la benn paatee bañal te li la bëgg a ah. moo yor këlli si de waaw bu bañee it kenn mënalu ko dara dëgg la na bañ fii ak 2017 mm. ba muy def élection beneen président am wala ñu élire ko na siisu bu soobee yàlla mhm. ñaan nañ jàmm dong daal ko ndax mhm. Sénégal pays la boo xam ne bii mhm. buñ la xasee élire coup d'état du fi am ndax ñaan nañ ko ba mu am te benn Sénégalais du ko nekk li ñuy ñaanal Macky nag ñii ko topp di lancer une campagne électorale prématurée vers 2017 Moustapha Niass a ouvert malheureusement la boîte de Pandore. Mm-hmm. waaw waru ko woon a def. campagne électorale bi mille dix bu campagne bii jeexee. Mm-hmm. mois de juin buy jeex ñu commencé campagne deux mille dix mm-hmm. est-ce que Macky Sall dana am dal pour liggéey li muy def. parce que bu gaa yi di coow ku ne xëcc fii ku ne coow fii est-ce que dana am dal pour liggéey nañu ko bàyyi may ko aafee may ko fiix mu noyyi te liggéey ñun moom la ñuy ñaan moom la ñuy ñaanal Sénégal mm. Sénégal am ci njëriñ. Mm. Macky Sall lañ àndal ndax Benno Bokk Yaakaar ñun ci lañ bokk. donc on souhaite la réussite de Macky personne ne souhaite son échec. d' accord léegi léegi tonton dernière question fi ñuy jeexalee émission bi jeex na mooy euh, société civile sénégalaise. Mm. Euh, man euh, dama bëgg a xam lu tax fii au Sénégal képp koo xam ne yaa ngi wuyoo société civile nga nga fexe. ëppal wala waane wala ñu jay la ba nga ne xaama dugg ci élection ci élection yi ñoom ñëpp ay zéro virgule zéro virgule nangam nangam ngay dégg pourquoi pourquoi pourquoi ñun ñun ñun euh, euh, sénégalais yi wóoluñu société civile ba war leen mën a euh, jox daal sànni seen carte yi gis nga société civile ñi ci nekk ak ñun ñii ñoo jàngandoo mm-hmm. Sénégal kenn réeru fi ku ne xam na sa morom société civile am na lu ñuy liggéeyee luy jariñ askan wi mën nañoo nekk di xool di xaaj ji bi bu mhm. gouvernement bi bëggee def lu kiiwut rôlu ministre de la bonne gouvernance mhm. société civile moo ko war a yor mhm. loolu mooy liggéeyam te société civile réew mu am mu amut ay dérapage mën na am te kenn du ci wax ndax société civile mën na tout le temps muy xaaj ji bi yow mii ay sëtu gouvernement bi benn yoon nga ko mën a xaajee élection ba élection aw saw carte société civile nag mën na tout le temps muy wax di jëf di xaaj gouvernement bi mm-hmm. donc loolu yi ñuy def ak di conscientiser nit ñi maanaam nit ñi ñu leen di gën di yee mm-hmm. loolu société civile man moo ci man politiciens yi mm-hmm. et eh, ñi ngi koy rafetlu di leen ci gërëm di leen ci ñaax mais mais nag bu dee dugg ci arène politique bi mm. arène politique bi mënoo ciy dugg gis nga bala ngaa gagné élection fii. il faut nga dem kolobaan dem xel Xelkom. waaw wër Sénégal. sukk lekk cere mbuum lekk lekk laaxu caaxaan <laughs> lekk basaab boo xam ne bii boo sàggantul boo naanee ba noppi euh, euh, sa biir mën naa na xare yow waa société civile ñu ci bari <laughs> xamuñu loolu dañuy toog rek ba élection jot ñu dugg élection mënoo koo gagné te waroo réew mi avant ba am amuñu xorom tamit Sénégal lu ñuy bañ amuñu benn xorom xam nga Sénégal lu ñuy bañ mm. déedéet du ma ne amuñu xorom amuñu xorom déedéet pour mm, man samay naawle lañ samay xarit tamit ci moo tax ni ma man moo xal la waaw yow bu yeboo nga ah, safuñu xorom te lenn Sénégal mm. munu xam nga le Sénégal bala nga fee gagné élection il faut nga am nit ñi denc leen waaw da ngay am nit ñi denc leen boo leen soxlaa ñu jóg da ngay daas fanaanal da ngay daas fanaanal dëgg la société civile ñi ñiy def candidat yëpp ah. Ibrahima Fall mais expérience xam-xam kenn ëpp ko. mais dem Nations Unies ba yàgg rek nga ñëw. man sama xarit la sax lool. mbokkam dégén ah. dégén soxnaam ah. sama nijaay tudde na ko doom muy Bouna Fall mm. maa anta mm. di Bouna Amar mm. donc te ñu baax lañ mm-hmm. waaye nag élection doo tëb rek dem. naaw rek ñëw ne ne ne jox leen ma seen carte ko amul réew moo ko mane un pays démocratique. Mm. kenn mu société civile mënu faa gagné élection. d' léegi léegi. Euh, parce euh, que dafa laaj campagne dugg ci nit ñi. waaw ah, nit ñi xam ñeenti at juróomi at. liggéey la dem liggéey la dafa métti de longue haleine. non dafa te dafa métti. dafa métti ça demande l' argent. <laughs> d' accord et c' est un investissement à haut euh, sama nijaay bi sama tonton sama papa sama grand sama lépp. dégguma petit papa de. petit papa. yow nag yaay petit papa yow. waaw mu nga alhamdulilah sa émission jeex na nga tàggatoo. ah tàggatoo bi daal. Mm. mas nga maa laaj ne ma mm. lu la gën a neex ci àddina. Ah. loo ci gën a bëgg. Mm. ta plus grande réussite. ma la nekkub jullit. ba nekk ba noppi nekk. taalibe bi Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. waaw mii ma sol. àjjuma jëlee sukk naa ko. ci barabu sëñ Touba. ñaan ci. boo noppee sax ci laa lay ñaanale wala ma ñaan suñu diggante. non ñaaral ma ci waaw li ma gën a naqari. gën maa metti mm. mooy teel bi ma teel a dugg politique. Mm-hmm. moo tax jeunes yii. Mm-hmm. képp kuy jeune maa ngi lay ñaan bala ngaa dugg politique. Mm-hmm. nga réfléchir ci avant nga ciy dugg. ndax politique dafa bari ay noonoon te yu amul njariñ. te politique souvent mën nga cee yaakaar lu bari te doo ko ci am dafa bari déception. donc lool laa leen di bëgg wax. les jeunes. Moustapha Niass nag sama mag la lii ko bë a dal na moo tax daal maa ngi koy ñaan mu waxtaan ak ngeganaayam mm. waxtaan ak i bokkam mm. ak i bokkam bu ko defee lii dana ci génn ci jàmm ak salaam mm-hmm. ñun nag duñu ko wax lu ñaaw fenn duñu ko xas duñu ko def dara ndax ñun ñëpp ku ci nekk ameel nga ko njukkal mm. ameel nga ko leneen bu na sekk nag li ma jotalee moom eh, maa ngi koy regretté waaye nag moo ko def ah bon ah moo ko déedéet du ma détail waaye maa ngi koy regretter ndax waruñu woon a àgg foofu ndax ay xarit lañ et je le regrette aussi et je demande au pardon au Sénégal yi nga xam ni dégg nañ ko dégg nañ ko waaw mais mais mais waaye yow tamit nag papa da ngaa mën defante petit papa da ngaa mën defante ndax nee nga yaa ngi regretté waaye moo ko def <laughs> donc yi naa ko ce qu'il ma koy nuyu bu baax nag moom moom moom moom moom euh, Bouna Mouhamed Seck sama grand la moom i tamit euh, euh, ma nit ku baax la waaw waaw vraiment nit la ku baax la dëgg ma koy remercier bu baax a a baax euh, moom. xam naa est xam nga koy maamam. xaw ma ko kuy maamam. Sidi Bun Maxtaar mi nga xam ne xaritu mm. sëñ Touba la woon. waaw for na for Sidi Bun Maxtaar mi nga xam ne bi sëñ mu mujjee ñëw Séné euh, Ndakaaru gouverneur woo ko. Mm. ñu naan ko dañ koy tekkal médaille. Mm. Sidi Bun Maxtaar la woo Ndar. mu ñëw njaarim fekk ko fa ñu ànd. moo tax mu baax xam nga ko sëñ Touba di àndal. nga bokk ca deret jooja ku baax nga ku baax nga waaw non moom ku baax la ma ngi nuyu sama grand mm-hmm. boobu mm-hmm. Euh, donc donc di buuna di la nuyu nag bu baax a baax a baax di la remercier euh, yow itamit sama petit papa bi moom petit papa moom moom petit papa à moi Mamadou Goumbala responsable politique euh, bu AFP ñema dëgg moo tax man man man nga neex ma man man daal ay tubaab laay wër ndax man tubaab moom waxuma ay choco choco ñoom ah, jotu njaay yaa ngi nii wax nag <laughs> tubaab yi doo nga ñeme dëgg ñun ñemewuñ dëgg non ko waxati mais xam nga soko soko yi tubaab yi kon léegi kon ma noppi kon kon tey ma fa yow parce que bureau ba ca Ndar lu fa woon euh, tubaab yi hmm, ah. euh, kon kon dellu ko censuré nag li waaw mu ca xéewal waaw jërëjëf jégal nañ la jégal nga ma naa la jërëjëf hmm. kon soko euh, soko yi ay ñoom ñoom jatu Njaay saxaloo ma leen mais man bii laa bëgg nga xam ne ñeme dëgg ñeme kii mooy rek euh, euh, euh, taalibe sëñ Touba bi mhm. donc nii daal laay wër kon di la bu baax a baax a baax di remercier bu baax tamit sa waa kër ña ma fi fekk si du nuyu bu baax madame Goumbala ah sa wujju boobu nekk ko maa ngi ñëw mhm. maa ngi ñëw na na na ma préparé rek man man neex naa wujjeel na ma jox rek benn ruq fee benn pante de fële rek boo ñëwee day dem Colobane Colobane nga koy yóbbu waaw Colobane laa koy yóbbu. mais mais mais mais sama de. non boo ñëwee mu dem Colobane. directement Colobane directement man dama nekk fi di waaw kër la maison familiale. la maison familiale ma nekk fii waaw mu dem fa ndax maay xale yaay ma def ba mu yaay doon sama père sama kii bu xeeñ. <laughs> émission bi jeex na. donc fii la mm. euh, may ne may na message ñëpp tout le ah kër gi ah waaw sama doom ji Jatu Njaay remercier Hamza dellusiwaat na moom maa ngi gërëm Youssou nduur nag waaw waaye nag Sénégal ah. na yu nu Youssou dimbali ah. ban am ñaar fukki Youssou waaw waaw bis bu nu amoon ñaar fukki Youssou waaw fii gën a Sénégal émergent am non yow ah. non man sama petit papa ah. bi neex na ma kon ma ma àggal sama yu baax rek euh, Pape Sira bi nga xam ne maa ngi koy waaj a dàq boole ko ci <laughs> donc di di remercier tout le monde di remercier bu baax a baax yow daal daal sa kër waaw maay sa chéri euh, euh, loo fi bëgg daal inchallah nee ma allo rek d'accord ñu teew jërëjëf jërëjëf beneen dimanche beneen festival mu ca xewoon jërëjëf jërëjëf yàlla na ni yàlla fay yéen ñëpp jërëjëf <laughs> amiin